course bi comme d'habitude rek daaw lañ doon tit sax non daawati jéeg lañ doon tit mais ren mom dañu ñew confiance bu nganda nganda nganda nganda confiance bu ngand équipe bi fi nek yépp leer na ma ni ñoo leen mën moo wóolu suñu élément am expérience surtout ci coach bi ak joueur yi maanaam boo seetloo nañu yobone presque ñom lañuy ñuy indiwaat maanaam expérience bi am nañ ko ci coach bi ak ci joueur yi booy dañ leen di euh, intégré rek nga relève moom buy ñëw danga koy teel a jël moo tax booy dañ leen di teel a jël intégré leen nga xamante ne dañuy ñëw rek nekk ci. ma Sénégal bi rek jàpp naa ne man amul benn danger parce que euh, d'après li mu seetaan ci kan bépp Sénégal moom amul benn équipe boo xam ne war na koy mën a gàllankoor franchement. même pas que je base mais euh, am nañ ay joueurs yu talentueux parce que boo xoolee suñu match bi passé suñu match contre Gambie euh, Aliou Cissé dafa teg trois défenseurs daal di renforcer milieu terrain bi génnee ñaari flèche ñu am Pape Gueye ak Lamine Camara ci milieu terrain bi gis nga sax ñoom ñaar ñoo mujj a dugal kon donc amul benn équipe boo xam ne war mën a gàllankoor ci kan bi daal. Sénégal moom fu mu ne nii Euh, da ngaa a wax ne dafa mën ci équipe bi parce que boo xoolee premier tour bi wane na ko quoi soo xoolee benn jafe-jafe ci match bi parce que boo bi premier mi-temps ñun ñoo ko dabaat ci contre Cameroun bi parce que Cameroun tout récemment fu dal lañ lu yàggul dara te Cameroun bi gars ñoo nekk di traité ba léegi mais li fi nekkoon nekkatu fi Cameroun ñu ñoo ko mun fukki junni yoon Cameroun Cameroun dafa am dafa am ay manquement yu fa nekk depuis lors ba léegi Cameroun boo xoolee ba léegi ñoom code su bi ñu soxla ñoom amaguñ ko parce que song di fa nekk déjà ñun xam nañ song tànn xam nañ loolu noonu équipe bi aussi dafa am ay manquement yu ci nekk depuis trois ans ñu ngi nii boo xoolee même ñoom bi ñuy jël kan bi sax ñoom taxawuñ amuñ équipe. équipe Sénégal bi boo ko xoolee gis nañu équipe bi dafa progressé ak doole fi mu nekk nii. So xoolee fi mu jógee ci match éliminatoire yi euh, progresser Nous devons confirmer cette euh, progression actuellement parce que le match bi sortie bi ñu par 3 euh, buts à 0 ça montre que l'équipe ngi ci ngi ci soo xoolee comme ku mel ni Lamine Camara euh, ça fait presque deux ans ba léegi de dafay confirmer progression bi mu nekk di def euh, soo xoolee ci CHAN bi euh, bokk na ci ñu tax équipe sénégalaise de CHAN il U20 tamit joué na ci rôle bu mag mu dem nekk tamit di confirmer bu encore des gën confirmer ça montre que c'est un c'est un talent pur quoi. moo tax loolu lay confirmé et puis entraîneur bi tamit jox ko confiance muy exploité loolu quand même. match la boo xam ne match bu euh, match bu kii la quoi match bu am solo ci ñaari équipe bi parce que tey boo nee poule bi ñaari favori ñoom ñoo war a daje. mais tey boo xoolee équipe bu Cameroun ak équipe bu Sénégal am na une grande différence parce que boo xoolee Sénégal ni muy progressé Cameroun progressé wul noonu soo xoolee même si sortie rek seen première sortie ñoom ñaar ñëpp Sénégal dafa gagné que le match nul te boo xoolee li Cameroun di jouer actuellement nekkul lu dal xel quoi par rapport ak équipe sénégalaise bi ni muy jouer moo gën a dal xel. équipe nationale du Sénégal moom vraiment instant bii nii xel yëpp dal leen parce que boo xoolee premier match bi coach bi li mu teg c'est un peu surpris xaw na surpris gars yi mais bon xam nañu choix bu baax la quoi. Euh, malheureusement ak match bii nii am nañ benn euh, élément boo xam ne nii perte nañ ko muy Moussa Niakhaté mais comme que Abdou Diallo ngi fii ak yeneen secours yoo xam ne nii dinañ ci mën a jàpp baax a baax instant bii daal le moral est bon maa ngi wuti ndam rek xam nga dem jàpp Cameroun nag zéro bi patal bi patal bi moom waaw Sénégal moom mooy dóor 1-0 même 1-0 baax na. mais nañu gagné rek te Sénégal day gagné incha allah. je pense que ni ñoom d'après li ma gis ci kan bi Sénégal warul waa jëm kaw la ñu war a dóor ñëpp. tey gis naa 2-1. 2-1 waaw. 2-0 Sénégal dina ko wuli 2-0 yu leer nañ.